naqari ci yokku leen d' abord màggee ci yokku leen màggee bi ñu toog rek ñu ne yëpp àggaat incha allah ma màggee bi njëkk a àgg suuf rek parce que dañuy dellu kàddu borom ku nekk na toogaat jërëjëf yàlla yàlla fay def jërëjëf. nâng em quân hàm thủ anh tình kế nâng em quân yêu tình gặp vừa rồi rồi anh sẽ leeral ustaas ni moom li leen fi ñëwoon ci pour rek xamal la ko ci xadis alquran nit baa ko sa xay solo am na solo li ci am solo mooy xadis naan ku ñëw yoon ak dañ lay sura benn su la ma sa bopp alquran sura yaakaar naa mën am ذكر لأعجم موقف عدم في حديث كر دائما كر تعدم موقف عدم يعني يعني أنا قلت على عدم عن موقف لذي بيوع الأمر كتابة من أفكار أنا ما كان أمر نجم عدم ينجم مغنيات أسمع نشوف وجنة أرضها السماوات والأرض عدم مغنيات أسمع نشوف أسمع نشوف àjjana moo ngi gën a yaatu Alxuraan ko wax juge bi la Omar seen Alxuraan bi kenn xamul lu ñu wax kon àjjana boobu fan la nekk Omar Sow mi ci kooku doo doo wax Alxuraan parce que Omar mën fekk ñu ci kaaba bi jant bi di génn mën ko wax ne jant bi buy génn fii bu sooyee fan lay nekkaat bés boobu ñu wax te ma ko waxee rek ma xam ne ko àjjana waaye nag xaw ku muy nekk kon xamoo ko xamoo ko àjjana nekk dama ci fan la yóbbu ma ko wax Alxuraan dina raam lu bëri parrain seen doom yi ku ci mokkal alxuraan dana yóbbu aljanna yéen bi moo ko wax kon yàlla yàlla ko